lii di draft constitution bi surtout euh, lii di section 118 euh, lii di nga xam ne nag mu ngi wax lii di euh, nit yu nga xam ne dañ leen jénne woon fii ñu yóbbu leen bitim réew ñu daal di leen jaay ñoom nag seen nit yooyu suñ fi dellusi pour am lii di xam ne moo di doomi réew Gambia war nañoo xaar ba du toll si 15 years bala ñu daal di mën a naturalise nekk Gambian nekk sax ñi wax nañ ne dañ daal di bëgg ñu wécci lii ñu def ko ñaar wala ñeenti lii di nga xam ne nag moo di constitution bu es bi bu nga xam ne lañ nekk di waxtaane jamono bi dafa mel ni nag dina bokk si suñ dundin si lu bëri nekk sax soo xoolee lii di process yi naturalisation bi nii nu mu dee faral di demee nag Gambia da nga war a xaar toll si 15 years balaa nga mën a naturalise nekk citizenship te nag soo xoolee lii di international rules yi nag yeneen yi wax nañ ne lu toll si 5 years loolu nit war na ko mun a naturalise waaye Gambia soo xoolee war ngaa xaar ba years lii di nga xam ne nag moo di lu ma wax rek moo di ñun ñëpp ab benn nit leen te soo xoolee suma maam yi ak suñu maam yi a benn lañ kon nag maa ngi daal di ñaax kii di Chief Justice pour mu daal di topp déglu suñu mbébét. ñun ay nit yi nga xam ne nag ñu ngi ñëw si biir réew mi fii pour daal di toog soo xoolee ñun jamono bii. dañ fekk suñ bopp si place bu nga xam ne ñun sax mënuñ fee xam lu ñu fi indi parce que nag soo xoolee sax dafa mel ni sax ñun ah, suñ ay kéemtalaay kàttan yu nekk di def si biir réew mi pour daal di gis réew mi dem sa kanam loolu ñii yëpp gisuñ loolu noonu loolu nag dafa wane niki draft constitution bi mu del di génnee niki sax dañ ñu fa génnee sa biir. te nag loolu nag waral na ba ñun ñu daal di gis ne ñun bokkuñu fenn te jógewuñ fenn. lu ma daal di wax rek moo di ne nguur gi pour ñu xam ne ñun jamono bi pare nañ pour daal di génnee koppar bu nga xam ne nguur gi boobu la jëfandikoo pour ñu daal di ñu defaral ñun kayit yii nii ak bépp process bu nga xam ne nag war na see dugga lii di nga xam ne nag moo di citizenship bii nii te nag soo xoolee amoon nañ offer bu toll si 4 million pounds si projet bu nga xam ne nag ñii bëggoon nañ ko fii asi waaye nag pour daal di gis ministre bi loolu nekkoon na problème niki ministre bi dafa nekkoon di ñu daw. lu toll si 8315 uh, African descendants ñoom nag jamono bi signé nañ pétition di pétition bu nga xam ne nag dañ daal di bugga uh, pour ñu nekk automatic citizenship si réew bu nga xam ne nag seen doomi juddu nañ fa Paradise TV News ko Koli